الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي أماد مبكت ديلن نيو ديلن زيارة ديلن دوكيل تي ويرو مغوي بسب مغوي نيونك نيونك daaira muqaddamatul xidma ci biir liggéey yi nga xam ne da koy taxawe ci biir weeru koor wi daf cay am wàll gu am solo mu jëm ci laaj ak i tontu mu amal ci wala mu fas yéene cee amal lu toll ci juróom-ñetti laaj ak i tontu jataay laaj ak i tontu tey jii mooy doon bu soobee yàlla jataay bi ci njëkk muy doon loo xam lu am solo la ndax ay wal yu bare bare lañ ci laaj di ci mën intim na ay tontu ci ay wal yu bare yo xamne ni ki fi tok wala ki nek ci biti di tewlu man ni ca jilé ay bind yu bare bare iko amal ndariñ loolu sax tay ji nak ñu fassiyene ci ànd ak ko xamne ni doonul gan ci jotaay bi yag na fay tew di fi def ay waxtaan yag na fay tewit di fi def jotaay yu melni mooy di tontu lenn ci laaj yi nga xam ne nii rodd nañ ñëw ci jataay bi bàyyikoo ci mbokk yi muy Serigne Mbacké Abdourahmane moom lañu ñu fas yéene àndal tey ci jataay bi mu tontu laaj yi nga xam ne nii moo rot bàyyikoo ci mbokk yi nga xam ne ñooy topp jataay kon ngir bañ a guddal dañu koy bàyyi mu nuyoo su nuyoo ba noppi ñu door a dugg nag ci laaj yi nga xam ne nii moo fi rot si a'udhu billahi minash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 ak bërëb bu tedd bi ak waxtu wu tedd wi yaakaar yu rëy yi ci aju yëpp yàlla na na ko suñu borom mboore defal defal ko mbooleem julli di ci àdduna bi di beral nuyoo sëriñ Seex ak mbokki daayira bi yëpp jërëjëf sëriñ Mbakke ci nuyoo bu am solo bi solo bi te jotale kon dañuy jëkke ci laaj bu njëkk bi kii moom day laaj ne koo xam ne nii yàlla da ko nattoo mu dof tàggoog sagoom ndax li ko rawoon ci ay julli wala li ko rawoon ci koor jamono jëmuy nekk ci tàggoo ak sagoom bu demee ba xelum dellu siwaat ndax loolu da koy fay wala déet eh, jërëjëf sëriñ cheikh xëy ci tàmbul bi danañu mbokk yi ko wax lu jiitu tey at li ñuy fi yépp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 mel ne daal xëy na loolu mooy sa ko jàpp bu fekkee ne daa wéré di ñaari at ñetti at su wéree at yooyu mu ñàkkoon a war na ko fay su baree ba nga xam ne nag fay ko coon la jéggal nañ ko kon tàmbaliwaat lu bees loolu moo nekk ci ngirum masab Malik bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku incha allah. jërëjëf ci tontu loolu leer na lool sëriñ bi kii day laaj ne mbokkum taalibe moo xam dafa bëgg jàng ay xasaayit ndax day aajowoo mu jàpp balaa mu koy jàng wala njàpp mi doonu luñ cay sàkku jàng xasida dhikr la tudd yàlla la xeeti tudd yàlla yépp nag dañ ci sopp laab jàpp moom nekkul farata ci tudd yàlla waaye sopp nañ ko ci dafa am ay béréb yoo xam ne dañ faa sopp tudd yàlla bokk na ci dañ faa sopp jàpp bokk na ca bu fekkee dangay tudd yàlla wala ngay jàng lu mel ni xadis wala ngay jàng xam-xam wala di ko jàngale wala nga bëgg nuyu waa ju baax walla ngay dem fu mel ne fu buur nekk wala ab ja yu demee noonu dañuy bëgg nga jàpp door ko def jàng xasir nag salaatu ala nabi la tudd yàlla la sant yàlla la yu demee noonu kon ci biir xeeti dikkar yi la bokk kon sopp nañ boo koy def nga laab waaye nag nekku ci ab sart boo xam ne boo ko deful du wér waaye moo gën nag te ci lay gëna mate ci ci lay gëna yaakaari ak nangu ki mom day laaj ne hadith bi lay laaj ndax wërna wala wérut ak su fekké nu wërna lan la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg wax moy hadith bi ne idhan tasafa shaabaanu fala tasumu hadith bi de borom xam-xami xadis yi wax nañ ci digënté ñukoy saxal ak ñukoy koy tadaif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 mas nañu laaj Yonent bi salaam ne ko dañoo gis li ngay woor ci Shaaban doo ko woor ci weneen weer pour Ramadan mu ne day weer wu nit ñi sàggane te mu am solo daal di wax ne weer la woo xam ne ci la ñuy yëkkati jëf yi di ko yóbbu ci yàlla man nag dama bëgg suñuy yëkkati sama jëf fekk ma woor kon loolu day dëgëral ne woor ci Shaaban terewuñ ko njëkk nisfu wala ginnaaw nisfu hmm. loolu nag kon day saxal ne xadis bi daif yi ñu ko wax loolu day dëgëral seen mbaa boog bu jàppee ne du temps yi fi wér na dañ koy yéegal ci maanaam koo xam ne wóorutoon dara bàyyi ba saabaan xaaj ba weer yu bëgg a jeex mu door a woor ci maanaam moom rek lañ ko mën a dégg waaye woor fukki fan ak juróom ginaaw saabaan kenn terewu ko su fekkee ne ay bis jiitu na ko bu fekkee ne loo woon ndax ay salaam bari woon na lu ko doon woor soññee ci waxit li tax mu bëgg ñu di ko woor kii day laaj ne ndax dagan na ci nit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 mu joxe mu dugg wala bu ñu dogee mu joxe li ñu bañ rek mooy joxe ko njëkk koor gi tàmbali ndax jaamu yàlla war a bu la war agul dee su ko sanee def jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj ne moog laaj bi weesu xaw nañoo mën a ànd mooy ki nga xam ne dafa munta woor ba war a joxe dara 625 yooyu ñu wax léegi mm-hmm. mu ne kon ndax mën na koo génne ci suukar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 te moo ci yax bi kon génne ñam wi mooy gën kii moom day laaj ne ndax dagan na ci jigéen muy joxe julli faratey juróom ci jàkk ji ànd ak mbooloo waaw xam nga sax na ci xadis yonentu ay salaam noonu na bu leen tere jibir yàlla yi jàkk yàlla yi laa tamna'u ima allahi masajid allah jigéen bu melee ni ko lislaam sant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 Gur mo wara jangal jigen jigen jigen. jigen jigéen bu ngànt amee nag te ñu sàmmoonteeg teggini lislaam mën naa nekk ndax sax na né sahaba yi daan na ñew ci yonentu ali sallam jigen yi di laaj goor ñi dañ daan dem ci yi laaj kon xam-xam des na ko jëlé fu ne li am solo rek moy nit ki jang ak ki jangulu ki ki jang mel ni l'islam gërem hmm. ci seeni wax ak ci seeni melo ak seeni jëflante bu lo amé rek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 ndax dagan na ci goor muy lettu kawruk bopam waaw kene bu fekke ne ini dagan ni wax ne bu fekke ne aada dagan da yunus sallallahu Alaihi wasallam dan lettu kawram kawaram ñetti lett ndax kaw gi dafa guddon ba ag ag ci magay wax na ne bi mi dugg am sohna su doon nettali ne bi mi dugg makka dafa lettu kawar gi ñetti lett sallallahu Alaihi wasallam ay lol nak day doon ada ci waaye sunu bërëb yii moom borom xam nga dañuy wax ne fépp foo xam ne létt du fa aada ak fisq lañ koy jàpp maanaam fii ñun góor yoru fi kawar gu jar létt ñi fi léttu it nag du ñu yiw ñu baax xam fii létt ñu baaxute du ay góor xam baaxoo wu ñoo xam nit ku yiw ku góor kuy léttu yu mel noonu it day topp béréb wata dañuy wax ne wax ne yonent ay salaam mas na ko def doytu xojjanee rek kon fu nek goor man fa faa amna fo xamne goor ne gu fa léttu ab fasikh lañ koy jappé mu la gëna jégé ndax ñañ fa xam ñukoy def ay fusaq la wala ñuko jégé wala bok goor ñu nur nuru jigéen té loolu du am solo bi ci du aaju xeyna kawaram da guddoon ba léeg-léeg mu tollo fo xam defar ko du yom ndax ci tukki la nekkon mu bañ muy ñoo tax mu léttu loolu aajo waaye yow mo xamne ngir nga létt kawar gi ay pexé ngay def waye yoro ci kawar lu jër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 Wow, sayyidina Osman. radiyallahu anhu bamu binde bindee yi mu bind lon tasare ko ci amsari ya ci dess dako dajale lakko ko ci teewaayu sahaba yeb te kenn inkaru lam daf kon manisna lak kamil kaami tere bu yaq lu mu daara yi ci bari lol manisna ko gasul manisna ko lak koo ko gasul hmm. lol sax lay japp ne mo gën lak wonapi nga gas ko sol ngir warma alquran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 bu la leeree ne bu la leeree ne waxtu wi dana dugg ba jeex te do àgg fa nga jëm te nga sa yorum japp di faatu waxtu dara jëru kon man nga julli ci biir avion bi fu avion bi jublu moy sa way moy sa qibla da ngay junj nak bu fekke avion la bo xam man nga taxaw julli rukkoo yëpp am na yenn xeeti avion yo xam dañ ci def jullikaay nga xam ñom da ngay mëna julli niñ ci ni julli waaye lolou alhamdullah so amul nak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 mu lekk mala woo xam ne lekk ko dagan na waaye mala yu nag day dunde sobe wala muy jëfandikoo loo xam ne dafa xaram muy laaj ba xam ndax ab jullit lislaam may na ko mu lekk mala yu mel noonu yi waaw ci sunu mazhab de li ñuy tudde jàllaa la mooy mala yi nga xam ne lekk leen dagan na waaye dañuy lekk sobe dañuy wax ne lekk leen dagan fii ak sobe sa demut ba saf ci yàpp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 waaye ñu wax rek ne lépp luy lekk sobe kenn sañutu ko lekk waaye bu sobe sa demee ba sopp yàpp woo jox ko caf sobe sa ndax dañuy wax ñoom ne sobe soosu mbir mu ne bu soppi ko lam soppi ko lay doon masalan tey boo bu ginaar lekkee sobe nit ki doomu aadama dañuy lekk ak nit ñi li lekk la cay soppi doon ay dem àll sobe la waaye la ci soppi ko doon yàpp ak deret day doon lu baax te mala yooyu li ñuy lekk lii day doon ay nem àll génnaat lenn li dellu ci seen yaram doon sidit wala mu doon yàpp ak deret loola dafa soppi ku jëm ci lu baax ñoom foofu la wax nekkoon jëmmi sobe si lekk ko du tax jëmmu ji ko lekk nekk sobe waaye bu demoon nag ki misaal ci ab am xar mu doon nàmp ci ab kalbu ab kalbu jigéen ba demee bu yàpp yi di saf yàpp kalbu nag su baa daganul waaye féeg agut foofa nàmp gi mu nàmp soowum këlbu du tax ñu ne yàpp yi arab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 liggéey la xëy na li mat laaj kay mooy jàng alxuraan ñu lay fay bokkut ak jàngale alxuraan ñu lay fay jàngale alxuraan ñu lay fay moom ab liggéey la ndax nit ki dañ koo sant mu jàng alxuraan am na loo xam ne ci alxuraan farata la dañoo xam ne faatiha ab jullit bu nekk war na ko jàng ndax boo julli farata la aji julli ju ne soo nekkul ma'muum jàng faatiha farata la ci yow boo ko defut sa julli du baax ci bépp rakkaat sax nak moy li ne ci mazhab bi motax dañuy wax ne jang ku farata la donte da ngay fay nit mu jangal la bo gison ko xani mu jot lolou du liggeyam bu la ko mënee biir nga yalla baxna waye su ah man kat dama yak sama liggey da may fay fay gogo dara neeku ci ndax ab liggey bu mu defal bu dagan nga fay li am kay moy ndax jang alquran lay fay nak li xew nit amu xew wala dara dajal jang kam mu fay leen loolu la boroom xam-xam yi wax ne dëgganu ndax jàng alxuraan jaamu yàlla la jaamu yàlla googu du tuxu may nunguwul ni yaago mënoo ko defal kenn sañ ngaa jàng alxuraan ñaanal nit ki yàlla sañ na laa jox hadiya mbaa mu salax la lu mu sob waaye ngeen siñe nag nga ne ko danga may fay nangam ma jàngal la nangam moom loolu boroom xam-xam dañuy wax ne dëgganu ndax da ngay jaay te bu fekkee na ngay wan ne ko li ma lay jàngal da nga ci jot leeru la ndax xamoo yàlla dana nangu jëf jëm kon yang koy jaay lo xone momoko leerul lu ba xam dana ci jotam de sañ nga ko jangal ngir yalla sañ na la jox ngir yalla waye wërtu doon lu ngeen di sañee mune bu mo moo jàngee kaamil nga fay ma nàngam jangal jàngal nag fexe ba nga mëna jang jàng alquran wala mokkali saar ñu fay la lolu mom dara nekku ci daga na baax baax jërëjëf sëriñ bi ci tontu lu leer li ki mom day lañ ndax mala wo xamni ni lek ko dagan na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 te xamul limuy tek mom da koy diglu ñuy jàng waye limuy wax xamuko ndax diglu gi képp dana ci am tuyaaba wala déet waaw waaw alquran mom no noo ak mom rek am tuyaaba li gën nak moy nga déglu ko deggu ko waye déglu gi ndigal la fa yaa quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu lol soko defé rek da nga am tuyaaba ndax déglu nga top nga deglu yàlla ni njariñ li nag dina gën a yaatu ëpp boo fexee ba dégg la muy wax xam ndigal yi xam tere yi nga di ko def waaye bu fekkee nag yow mënoo lépp te man leen it la nga mën baax na mooy nit ki nga xam ne mënu koo dégg xamut li muy wax waaye teewut yàlla xëy na ko ci mën a wax ji neex ci moom mu di ko déglu doon te xamu ci lenn déglu ko mu koy déglu ngi yàlla insha allah taala da ci am tuyaaba ndax ndigal lay def te ndigal koo def ñu bind la ju tuyaaba waaye nag li gën nag mooy fexe ba man koo déglu waaye man koo dégg góorgóorloo ci jàng ba li aay yi wax nga xam ko ndax ay ndigal ak i tere jëm si yow jullit bi waaye ñàkk koo ñàkk koo dégg nag tekki ne boo dégloo alxuraan doo ci jariñ ah kay da ci jariñ baax ndax déglu ko jaamu yàlla doonte xamoo lu muy jërëjëf sëriñ bi kii day laañ ne ndax diine yi yahud wala nasaraan ndax dañ koy jàppee mu bokk ci diine yi wàcc ci asamaan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 donte sax soppi kuutóor it diine jooju doxatul ndax sunu borom moo wàcce woon yahudi ak nasaraaniya waaye bi lislaam ñëwee da ko da leen a nasaxal la ca war a des dib àtte mu bàyyi ko ci lislaam wa may uh, na diina indallaahi lislaam wa may yabtaxi xayra lislaami diinam fa lan yuqbala min kon léegi ci àdduna jëpp diine ji yàlla jàppe diine mooy lislaam donte nag yahudi ci cosaan ak nasaraaniya ci cosaan ay diine asamaan lañu woon bàyyi ko ci kaw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 ruxsa am na ci ñi jàpp ne jigéen mën naa seere armeel waaye ci mësëb moom dañoo bokk ci ñi lëngal tere jigéen mu seere ji armeel mm-hmm. ahsanallahu ilaykum sëriñ Mbàkke kii day laaj ndax kaamil bi ñu yor tey jii suñu jamono mooy kaamil bi nga xam ne moom la saxaaba yi dëppoo woon ci seeni jamono na mooy alquran waaw kaamil bi ci xiraat yi am dañ nangu ko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 te bu mu doon nag lu am jëmm bu mu doon luñ luñ luñ nataal mu am jëm am ker waaye bu dee photographe yi nga xam ne walla dessin te jublu ci yooyu boobaa dara nekku loolu la borom xam-xam wax. Hmm. kii moom day laaj ne yan mbir mooy yi nga xam ne dañu koy tere nit mu di ko def bu fekkee yorutu am jàpp. ku jàppul du julli du julli farata du julli naafila ku jàppul du laal ak kaamil li ñu tuddee mushaf mooy téere boo xam ne.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 du julli it naa ak naafila ci am donte sujootu alxuraan la sujoot julli la <coughs> julli la ku jàpp du ko def jazakumullahu xayran kii moom day laañ ne dañ koo may jigéen ne ko war ngaa joxe can nee na nag mu bëgg xam nag can googu mu war a joxe nu ko lislaam daytale lislaam nu mu wax ne can nii la war a toll can ci mazhabu malik bi ñu nekk mooy rubon dinaar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 kon suñu jamono ji lool la ñu ko sétlo jamono sëriñ bi radhiyallahu anhu ñaar témèr la waxon ne bu ko kenn weesu ci kenn fa melne rubu dinar la xayma won ci ñaar témèr wala témèr juróom fu na waxon ne so womalé bu weesu ñaar témèr so woomalut juroom témèr juróom fu ñi waxé ne ñaar témèr yoyu jamono Cheikh Mouhamadou Fadil mom la xayma won tolloole ko ñett jooni dafa ne ba tey ñun ñëpp dañ ñon dàkk rubu dinar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 barab bu mën a nekk mën koo xayma ci xaalis foofa lu mu tollal loolu mooy ci lislaam ci mazhabu imam malik radiallahu anhu jërëjëf sëriñ bi ci leeral yi kii moom day laaj ñaari laay yi la bëgg ñu firil ko ko muy li sunu borom di wax ne xamalatu ummuhu karha wa wadaatu karha ak li sunu borom di wax ne xamalatu ummuhu wahnan ala wahn yépp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 mën na doon jaamu yàlla bu am ngërëmu yàlla wala muy sax mu tekki ci kaw suuf kon yeeyoon na loolu ñaari aay yi loolu la ci borom xam-xam yi wax jazakumullahu xayran kii moom it day laaj ne li sunu borom di wax ne wabtaxu ilayhi alwasila loolu la bëgg ñu tekkil ko ko ak nan lay doonee sàkku leen wasila jëm ci seen borom wasila ci arab dañuy wax ne bis siin ak bis saat benn la so dewuñu maanaa mooy lu lay jo jokkale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 lañ lay def boo ko defee boo ko toppee daal xam yàlla daal egg kon am nga wasila mën naa jaar ci nit doon ay jëf bàgg ci sa borom subhaanahu wa taala allahu alam jazakumullahu xayran sëriñ Mbàkke kii day laaj lan mooy ngëneelul jàng ayatul kursi yi ginnaaw jullik farata ak booy tëdd bari ni njariñ lool lool yonent salaam nee na ku jàng ayatul kursi yi ginnaaw jullik farata gune faatu rek rek moko ko tabe aljana képp koo xam ne saa boo jullee faral ayatul kursi faatu rek mo la te tabe aljana lolou xadis bi na sax na ne euh abu hurayra neena na ay sam da ko mas di Samulo dajaloo muri koor yi ben way ñew fa mu japp ko neena na mu ne ko tey ma wax lo xam mo gën ci yow bo mu baye mu ko mu ne ma dal sa boy teud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 أحسن الله إليكم كي تميت مبكلا ميلا دي وخنة لن موي جس جس بالإسلام تي يلوان يلوان الإسلام دكو تري إلا في حالة الضرورة كي الإسلام ما يمو يلوان نينا موي كدب بسس أمود لوم لك تخي باي بوخم دخارو تخي دي كوراي واي كيب كو أم لوم جاب ورو يلوان ما ينا نك كدب بسس أمنا حديث بوخ دا وخنة لاج دغنون lu ci ñett mu ne kenn ki moy ko xamne dafa gaddo ay nit da bëgg dafa rek ba tax am ñu mu gaddo fa alal te amul lu mu fayee sañ naa dem yalla nit ñi fayé keneen ki yalla ko xamne yalla dafa daf jaay ci alal da bayoon tool ba mo war ñor ay njéeréer ñew lek ba amatu lu mu lekk sañ yalla yalwaan ak ku ñak nak ba ñepp xamne ñak na yalla ba am lu mu kon dal aajo nit dal bu amé aajo dafa sañ yalla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 nga yelwan ngir yalla bo señ nga yelwan ngir yalla waye ñi lay saraxit señ la sarax ngir yalla jazakumullahu khairan ki tamit day laaj señ Mbàkke day laaj ne lan ñari ñul goor di ber soxnam bu fekke dafa nek ci gis bax wala mu toll ci gis wasin bi ci ñëk eh, xeyna na waaw suñu borom moko sant moko moko moo mom mo wax ne eh, na ngeen sori jigéen ñi buñu nekk ci xala bobu hmm. قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط نين برو جيجي بو نيكي تي حيض بروم خام خامي نك نينو ازا جوجي مو واخ ن لور لا لور لا تي جيجين جي بو جاخاسو لور لا تي بروم كرم لور لا تي دوم جي تي سوسو سا واخ نين ني جيجين بو تول لي گيس باخ ني جاخاسو اك موم درات جوجو امنا اي جانغور يمي توب تي اوراي گوندي باخو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 ni njëkkal islaam nga xam ne bu jigéen masana daal dañ koy ber ci àll ba moom bu leen jaaxal su rek la wax waaye dañuy bokk lekk bokk tëdd bokk lépp li tàmbalee seen jumbux ba ci seen bëtiwam la ñu wax ne bu leen kenn jegee ci diggante boobu suñu xasee gis baax kon xekk ma bi ci nekk mooy lor yi ci nekk la yàlla bëgg jaam ni muti jazakumullahu xayran kii tamit day laaj ne euh, lon mooy àtte bi koo xam ne nii day jàng alquran te du tënku ci benn riwaaya day mel day jaxas si riwaayaat yi waaw ah, alxuraan nag li ñu santaane mooy jàng riwaaya bu nekk nit ki sañ na ko jàng bu ko mënee sañ ngaa jàng aw saar ci riwaaya bi jàngaat ko ci benn riwaaya waaye li ñuy tareke mooy di jaxase hmm. menn njàng mi ngay def xaf di def warsh di def leneen wala ci biir benn xiraa bi sax ngay def warsh def xaalul loolu la ñuy tere waaye nag sañ nga tey nga jàng lépp riwaayatu boo wala yéen jàng xaalun wala nga bàyyi ñaar yëpp dem jàng hafs hafs wala yeneen hamza yi ci des yëpp ci kaw boo ko mënee xam atte yi waaye jaxase ko nag boo nappee day ware ni yow nu wees nga indi woo xam du benn riwaaya ndax bu fekkee menn njàng mi la lii doon warsh lii di xaalun lii di hafs lii di leneen boo nappee buñ ñu la laajoon yow ban riwaaya nga jàng doo wax benn riwaaya riwaaya bees nga sos hmm. ci lislaam nag sos ci daganut hmm. kon biñ ci man sañ nga koo jàng kenn du wax nag ne na nga yem ci benn képp képp boo mënee yëpp sañ ngay jàng yëpp waaye bu ci nekk nag jamono ñu koy jàng nga jàng boobu bu ko jaxaseeg beneen waaye jaxase ci menn njàng mi la ñuy waaye nag ku man yépp jàng yëpp ndax bu ci nekk sax na benn ci ñoom gën a wér morom bi te nag nit ku ne nag ba mu gën a man gën koo jekku sañ na caa yem waaye du farata ñu ne faw ci la waree jazakumullahu xayran kii day laaj ne lan mooy atteb koo xam ne daa bëgg a mokkal alquran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 jazakumullahu xayran sëriñ Mbàkke kii day laaj ne koo xam ne dafa fàtte benn diggante ci ab cëram bi muy jàpp ab diggante bu ndaw daal bu mu fàttee raxas bi muy jàpp muy laaj ba xam kooku luy atteem ci lislaam waaw ku jàpp ba fàtte benn cër soo ko fàttalikoo dangay dem raxasi cër booba ndax njàpp ba tey ak gudd cër bi nga fàtte daa war a tooy ñu war koo bomb boo ko tëbee nag tooyagul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 mu bay waye bor la bu ne ci losam te dana ko fay ba am yaqin ci def wala xelam dal mu door bay. bàyyi waxuñ ko nak mu fay ko tay tay waye man nako fay sa bu jille jenn farata fay ben farata balam jappon budé ay wèr budé ay at budé ay bis mu def insha allahu taala yalla jégg na ca bolé tuub nak ndax lolé it ba ay julli bari julli woko lolou bakkar la bo xone fay ko rek doyu ci waye dang nga bolé tuub jéggul yalla mu la ñawte fofu te nga bañ ko defati أحسن الله إليكم كي دي لاجن داور نون داف قبل السلام نانا يالا دوغال مو فاتي كون اك بسل مول بنوبي دورا فاتلو كون ورونا داف قبل السلام موي لاج كون لوي اب اتيم تي الاسلام بو فيم توغون جوغو في مينكي جاك جي ген نغوت سوري ووت نكو صوب بعد السلام جيخ مثلا نيكو خاندي السلام عليكم رك فاتلي كوني موم كات ندكي ورونا سجود قبل السلام واي سلمالنا نا دم سجود بعد السلام جيخ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 jazakumullahu xayran kii moom day laaj ne koo xam ni dafa dagg ak julleem ngir jañ lor ju jëm si ci moom wala sax lor ju jëm si ci keneen mu dagg ak julleem ngir loola lan mooy atteb lislaam ci julli googi léeg-léeg mu nekk farata léeg-léeg mu nekk farata ci ak jullit mu dagg ak julleem ngir xettali bakkan wala xettali alal ju nar yàq hmm. boo séenoon alal ju bari awrab narko nar ko seex wan wala sawara jukku nar ko lak sañ nga deug da nga war deug dëgg ngir xetli alal jooje donte momo naka non nit ko xamne ma nek sel silmaxa waa ko jëm ci pax mo xane sawara ca nek fekk la kabar ju da nga war deug dëgg julli xetli nga deug julli ndigal la julli gi na ci bakkar ndax dañ ko dañ ko dañ ko da nga def la war def kon amna fo xane ngir xettali bakkan wala ngir xettali doomu adam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 jërëjëf sëriñ Mbàkke kii moom day laaj ne lan mooy atteb koo xam ne dafa njëkk a jàng saar wi dooru caa teg fatiha daa waroon jiital fatiha mu dem njëkkee saar wi door jàng fatiha kooku day daa bàyyi la gën def lu gënul waaye nag du yàqu julli ga de jàng fatiha teg ci aw saar moo war a jiitu waaye su jiitu doon saar wi nag ngëneelul jiital fatiha moo ko raw julli ga baax na du su jootit nag waaye nag lim def moom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 Euh, jazakumullahu xayran sëriñ Mbàkke kii day laañ ne lan mooy àtteeb koo xam ne nii dafa topp ci ilimaan joo xam ne nii dégg lu imaam ji di wax xëy na da doon tollale ñu dem ba ci yàgg courant bi coupé moom mu sëgg di sujjóot fekk imaam sëlmal na bu yàgg moom ah, day si gisëlmal rek day si gisal gisëlmal xam nga boo gisee tolloole ñu di ko tere ñaari yëf la benn bi mooy boo duggul jàkka ji doo am ngëneelul mbooloo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 day àggaleel bopam bu fekkee julli gàggul bu àggee it musulman jërëjëf sëriñ bi ki day laaj ne ko xamne ni ndox dafa génn ci mom waye xamul nak ndox mi maniyu la wala masyu la wala déet mu ne kooku kon nu def dapp ne maniyu la mu sàngute bu fi julli won mu fay mok ku nelaw ba yew gis am ndox te xamul maniyu masyu la ñoo yeew li génn ci mom te xamul maniyu la masyu day jàpp ne maniyu la jàpp li gëna not sàngu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 ndax day mel ne xeeti saboote yàlla ne tey bëgg leen nga ne man du ma bëgg bisub it dañuy tere ko ci ñaaw am yére solo ko dañuy tere lool dañoo bëgg ñëpp sol lañ gën a yeesle lu luñ sopp la nag lu ñu sopp nag mooy ku mën lañ ko sant kon doonut loo xam ne it mbokk yi ni ki da ci teg tegoo lu mënut wala mu toggoo ci loo xam ne boo lëgee mu juree ko góom yoo xam ne du gaaw wér waaye ku daal sopp nañ bisub it yàgg sa sa njaboot nga wutal leen yére yu yees julli ji ak ñi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 man xala nga tëj jotaay bi rek ci kaddu yu tëj jotaay waaw kay jërëjëf itam ñu ngi lay nuyu nuyu mbokk yi bàyyi xel jotaay bi yépp di wax ne ci bi jema xam sunu diine ndax nah, diine ko lamb lu am solo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 ànd ak ñoom di jaamu yàlla te yàlla nangu ñu suñuy jaamu lépp dafal ñu tawféex te àdduna ak àllaaxira ci barki sëriñ bi wasalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ bi kon suba incha allahu danañ fi waxtaanee xaq yi nga xam ne lislaam moo ko tëral wax ne xaq yi ñii lañ ko war a jox suba nag incha allahu ñu tànn ci xaq jirim xaq jirim lañ fas yéene waxtaanee suba ki ko war a ànd ak ñun mooy sëriñ Fadilu Njaay Gédé moo ko war a ànd ak ñun suba ak jàmm incha allah kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi teewoon ci jumaa ji ak ñu doon teewul waxtaan wi ci génn jumaa ji ci Lamp TV ak ci mosquée Touba Poyo orgu ak ci xasida online ak ci Touba wala alxadimiya wala Touba Vision ak Bawol misa ak Mouride TV ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ba suba ak jàmm allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa